merci beaucoup c'est un débat vraiment très enrichissant mais damay commencer ci ñaari baatu olof parce que aussi république bu ñu ci nekkee aussi il faut ñu respecter les fondamentaux de la république république ci ay règles lay dox ay normes ku nekk da nga am rôle booy jouer ku nekk da nga am rôle parce que dans une démocratie il y a un package il y a les institutions il y a les règles du jeu il y a les partis politiques il y a la presse il y a la société civile et les juges le pouvoir judiciaire qui parce que boo demee si article 92 de la constitution même da ngay dégg ne la c' le conseil constitutionnel qui juge de la régularité de toutes les élections nationales et de la consultation référendaire et en proclame les résultats donc conseil constitutionnel dafa am lu muy jugé c' est pas bu institution bu technique wadd ni ex nihilo dafa am benn pàcc bu am importance boo am ci constitution bi lu ñu wax te ñu demal ci ba alinéa 3 mu ne la c' le conseil constitutionnel qui le juge du jeu électoral de proclamer les ces décisions ne sont pas susceptibles d'aucune voie de recours. Et il s'impose à toutes les autorités des pouvoirs publics, les autorités administratives et judiciaires. Donc cela am na loolu dafa am lu ñu firi ci constitution bi la ñu ko def nekk sax loi organique ci constitution bi la dugg. Euh, man li mu bëgg laaj mooy est-ce que président war na déclarer sa candidature ou est-ce que loolu dañ ko bind ci règle ci ci ci ci calendrier républicain. mais am mais Amath yow waroo ko laajte yow yaa ñu war a non mais non mais je vous pose des questions après je vais revenir dans ah, dama c'est-à-dire je vois que les gens alimentent ce débat là dama laajte est-ce que c'est une obligation légale que la loi lui fait le président de la son temps à tant de mois avant les élections war na wax ne moom day bokk du bokk lu la wax quoi. fii yaa fi l'initié non non je non je vais répondre dama naa naan est-ce que ah. parce que ñun ñëpp aussi dañuy gëstu. parce que on s'intéresse à la vie publique à la vie du président de la notre président de la République am nañ droit xam mandaam lan lay demee parce que d'où l'importance ñu ci débattre léegi li bëgg xam dama ne parce que tout le monde les gens la majeure partie des se pose la question même la société civile même les partis politiques de l'opposition président war naa wax ne moom du candidat wala candidat pour firi mais may mun man dama am benn c'est ma conviction ah. man gisuma ko ci code électoral ne président dafa war a wax ne moom du nekk candidat wala koy nekk gisuma ko ñu bind ci constitution bi kon je légalement on parle sur les normes qui organisent l'organisation et le fonctionnement de la République donc ci norme yooyu laay dox dama ne ban obligation légale ou réglementaire moo ne président de la wax na man candidat loolu du candidat la wax donc bu nekkee loi mayu ko règlement mayu ko kon je dis que c'est un débat c'est-à-dire kii la quoi dañuy spéculer rek et puis pourquoi ñuy expliquer ñun ñëpp dañuy tani président war naa ne candidat waru ne candidat qui est le l'interprète original et légitime de la constitution mais c'est moom rek la mooy wax li ñuy wax ñu ñëpp dañuy tani li mu wax mooy am te mooy jàll parce que conseil wax na ko nekk li nga wax kenn mënu koo def te mënu ci def recours soo xasee bu wax jeex na ñëpp dañ ciy dënku kon kay jeex na loolu conseil moo ko may. waaw waaw waaw léegi ma dama lay poser la léegi may ma yegale pare. non baal ma poser la question directement puisque boo ko adapté à la situation qu'on qu'on qu'on qu'on vit. waaw euh, euh, lan moo sama réponse ñaata yàgg naa ko naa ko waxat benn du ma juge constitutionnel je n'ai ni qualité. ni la ah, compétence waaw maa ngi ñëw dama koy wax mais du man maa ko mais daa wax parce que boo seetloo en 2016 y décision de la du conseil am na lu waxoon bu ñu ko président laajee avis gars yi naan avis consultatif la avis confirmant avis daal décision voilà am na lu wax ne le mandat en cours n'est est hors de portée waxoon na loolu alors que je t'avais nee na les décisions du conseil constitutionnel s'imposent tout le monde kon waxoon na loolu réglé woon na ko donc su ñëwee man da conseil conseil bu ne non daf ne mandat en cours sept bii daf ne mandat sept bi Macky Sall daan def moment bi mu koy laaj moment bi mu koy laaj moom Macky Sall lañ ci mandat sept ans jógee ci 2000 war a ñëw ci 2019 jógee ci 2012 ñëw ci 2019 ah. n'est-ce pas ah. en 2006 en cours de mandat la ko laaj ne ko damay laajte ndax sama mandat bi dama ko bëgg a wàññi volonté boobu laa am jugalee ko sept ans yëm ni ko cinq ans volonté boobu laa amoon mais président de la République n'est pas l'interprète de la constitution président de la République nekkul ci ko constitution constitution moo ne ci ko am bu ñu demee laaj juge électoral bi ju ju euh, le conseil conseil conseil daf ne ko mandat bi nekk en cours moom moom mandat bi ba koy wàññi mandat bi su su su su euh, comment dire souveraineté populaire moo la ko jox kon donc bay wàññi da ngay wàññi loo moom dañ la ko jox pour nga exercer ko mais bu interprété dans la dans après conseil conseil na ko mais ci doxalinu conseil conseil ak ci histoire yi doxalinu conseil conseil mandat bi mënuñu ko wàññi donc c'est hors de décompte maanaam bokkul ci compte bi bokkul ci compte bu la wax hors porté bokk ci bokk ci la ko wax. et donc ci mi ngi ci mi ngi ci décision bi. ñëpp gis nañ ko. et donc ci mi ngi ci décision ba. Ah, alors que dans la constitution à son article 92 nous avons nous dama ngeen xam tàpp ak sa war nga xool 94 article 92 de la constitution à son alinéa 3 xaw ma 4 mi ngi wax les décisions du conseil constitutionnel ça s'impose à tout le monde léegi nag man dana ma bett lool conseil constitutionnel dana ne Macky Sall ah, waroon am ah, waroon nekk candidat dana ma bett à ah, sinon le conseil constitutionnel sinon le conseil constitutionnel va se contredire il va se contredire loolu laa wax man nag du ma conseil mais damaa wax rek sama xalaat en tant que avis juridique maintenant bu ñu demee nag ci kaw loolu ma ne man may mun na benn affaire dama xam Macky Sall président Macky Sall su waxoon na man du ma nekk day sànni day sànni pouvoir bi da koy sànni ci mbedd mi pouvoir du ñu ko sànni may euh, mun a pouvoir ñu ko sànni c'est comme si borom kër ga oo njabootam njaboot ba pare am teranga am alal bu ñu tasaaroo commencé rent yaa rey sa yaa tas sa njaboot non non je donne un exemple je dis peut-être ça peut coller comme ça peut pas coller dama ju bëri ay doom jibawul yaa gam ne mag APR ñëpp jibawuñ

pouvoir da koy sànni gannaaw man dama ne Macky président Macky amul benn obligation légale ni réglementaire ni la caution waxu ko ne ko temps bii délai bi da ci war a wax da nga ne Kanda wala Karga il n'a pas tenu de amul benn obligation légale te le président de la il tenu par les lois et règlements du